Sonko muy membre honoraire moom ci boppam bu bureau exécutif euh, national euh, Magui Pastef bureau exécutif boobu kon moo dajale Magui Pastef mu ci membre honoraire ñu ngi lay dalal doyen Alakan maam booy di am mbégte lool am la gan ci suñu émission démb ak tay bismillah. merci merci merci merci beaucoup merci beaucoup euh, mbégte laa àndal nag parce que. danaa wax ak Rewmi FM ah. mais à travers les FM est dans bureau. c'est naa ci kontaan naa ci. ñun ñoo la gën a bég di la gërëm aussi ci euh, occasion bi nga ñu may ñu mën a sekk ak yow waxtaan xanaa bala ñu cay soobu rek nga euh, présenté wu ci xëy na ndaw yi nekk tey euh, di ñu déglu te xamuñu la bu baax a baax xam naa ne mag ñi moom kenn dootu leen wax koy doyen àlla kan waaye am na ndaw ñu la xamul nga dikk ak ñun tuuti rek ci yow yaay kan ana foo jaar ci wàllu politique ñan nga ci àndal. ak xëy na lu ñu war a gën a jàpp euh, ci ci sa jaar-jaar. Euh, jaajëf euh, wax dëgg yàgg naa ci politique bi nag yàgg naa ci lool lool lool depuis maa ngi ci biir. te ak léegi tëraluma samay gànnaay maa ngi ci tool bi yooyu sama ileer di béy parce que loolu moo war tool bi si mooy Sénégal ak Afrique mooy doomu Sénégal di doomu Afrique. yàlla may ma nag ma dem dugg ci barab ba nga xam ne ñi fi ñëwoon di ñu noot ñoo ko ubbi ñu ko école ma jàng école xam nag pexe yi nga xam ne si noonu yi am nañ ko ma mokkal ko lool ah jamono di dox dox dox ba nga xam ne en 1957 euh, am na lu xewoon ci ci àdduna bi benn période boo xam ne dañu doon dañu doon génnoon ci li ñuy wax guerre mondiale la seconde guerre mondiale euh, boo xam ne Hitler mooy lëmbewoon àdduna bi ay réew yu bëri lëngoo lëngoo xeex ko ba daaneel ko ñu dugg ci beneen jamono boo xam ne jamono du seconde euh, euh, fin deuxième guerre la amoon na réew yoo xam ne dañu doon not pàcc bi ci des ak pàcc ado bi des amoon réew yoo xam leen notoon yàlla def na ñun fii ci Sénégal ak Afrique ñu bokk ci réew yi nga xam ne dañu leen notoon waaw dañ notoon néewal ñu doole ëpp ñu doole jógee seen réew ñëw toog suñu réew not ñu waaw loolu nag dafa yàgg parce que comme émission bi démb tey la mm-hmm. démb moom boo ko dee conseil yaatu na lool dafa am jamono boo xam ne bii ñun nekk ñun rek la woon ñun neen la woon waaw amuloon kenn ku jóge àll ba ñëw noot ñu mais ñoo doon doxal suñu bopp nga dégg ñu wax ba dégg empire du Ghana empire du Mali nga dégg fi Sénégal nga dégg empire du Jolof royaume di Waalo royaume du di Kay du Kayoor royaume Bawol loolu nekk di dox am si doxalin mais àdduna dox di dox di dox ba nit ku xonq ci ay xarala ay xaralaam jël bateau di di diwandeeru ci géej gi ba teer fële ci booru Ndar c'était en mille neuf en mille quatorze cent quarante deux ku ñuy wax Cadamostro nekk benn vénitien benn italien moo moo gaaree foofu rek foofu la ko affaire nag tàmbalee nag ba nëgën ni mais ca au commencement ñoom du ñëw ñoon pour toog du ñëw pour di jàpp ay nit di yóbbu Amérique def di di di béy seen tool foofu waaw def leen jo jàpp loolu nag yàgg na loolu daf def na ñeenti xar xarnu mooy siècle mm. alors ñu jàpp suñu euh, si doom yi suñu mbokk yi de duus gaal di yóbbu boo déggee ñu wax Gorée am na boo demee Gorée yi daan jaar di yóbbu mais loolu di aussi àdduna day dox di dox di dox di dox di dox ba la nga xam ne loolu lañ soxla woon fële ci Amérique dem na ba nga xam ne soxlaatuñu leen ay ay ay ay nit pour ñu koy doxal ñu jëm ci li wax. nañu bàyyi esclavage en 1848 la dakk mais comme ñoom amoon nañu doole ñu benn pexe boo xam ne au lieu jàpp di yóbbu ñoom dañu ñëw toog waaw dañu ñëw toog fii def fi ay comptoir commerce di jaay di indi seen di jaay et cetera te loolu comme Afrique dafa yaatu woon ñoom ñu nga xam ne amoon nañ doole ci Europe ñu dem ca Berlin dëkk bu ñuy wax Berlin di capitale Allemagne def la conférence de Berlin ñu séddoo Afrique allemand yi jël français yi jël anglais yi jël portugais yi jël et cetera looy wax la la conférence de Berlin pour ñu séddoo ba ñu si fii alors boo ko defee nag ñoom da ba ñu def conférence Berlin rek ñu toog coloniser toog suñu réew dàq suñu doxalin dàq suñu aada indi seeni aada def dagat dagat réew yi def ko ay ay cercle cercle bu ñu kenn du commandant de cercle après ab ak gendarmerie il fi gouverneur comme ku nekkee président palais bi foofu lu gouverneur bi nekkoon donc loolu di dox di dox ba deuxième ko ma fekk na euh, xam-xam xam xaw a yaatu suuf si nit ñi jàng suñu comme ma waxoon léegi rek. waaw ngeen dem jàng ñoom lan indi xam nga am na nag suñu borom yoo xam ne jànguñu mais comme ñu yàlla ñu may nañu jàng. ñu gëstu ba ñu bu ñu jëlee ci téere tubaab bi mën ko jàng am seen pexe réer dox ba nga ne ba ñu génnee nag euh, deuxième guerre mondiale mu am lu ñuy wax benn conférence de Bandung daje boo xam ne réew yi nga xam ne dañuy dotoon te ñoom am seen indépendance ñoo fa daje ne réew yi nga xam ne amuñu indépendance jot na ñoom itam ñu jóg xeex pour sa am seen indépendance foofu la c'était en 1955 alors foofu la mbir mu jógee nag. ba yëg si fii ci ñun conférence de Bandung boobu fekkoon na déjà euh, Vietnam am euh, xeex ba ba gagné Algérie ngi doon xeex Maroc ñu ngi doon xeex ñëpp ñu xeex ñi ci xeex am indépendance ba ba nga xam ne ñu am indépendance mais ñun fii ci Afrique bu ñuul boo xam ne tubaab yi France moo ko moomoon ci indépendance def dañu dañuy nax loolu lay wax tout le temps te nag tant que comprendre luñ loolu li xew léegi di ko mën a xam ndax bi mooy lan moo di ne euh, France bañ ko dàqee Indochine Indochine mooy fële ci Asie amoon na fa ñetti ñetti yoo xam ne day notoon bi wax Vietnam Cambodge ak Laos ñu dàq leen foofu puis ñu dàq leen Maroc en 1956 dàq leen Tunisie en 1956 euh, suñu mbokk yi nekk Cameroun commencé jël gànnaay di xeex Algérie jël gànnaay ñoom tam comme Maroc ak Tunisie dem na ñoom tamit di gànnaay xeex français yi ba nga xam ne France yi nga xam ne ñoo nekk Algérie am njaaxare parce que ci lañ ne ñii ñu bàyyee ñuy xeex dañ nangu réew mi parce que France yi dañu carrément ni ñoom moom ñoom moom Algérie par dañ fiy toog ñu menacé nag ba nga xam ne Algérie ñu ngi bëgg a ñu ngi leen bëgg a néew doole ñii dañ dem France def ko coup d'état nangu réew mi pour que ñu bàyyi ñun Algérie alors assemblée nationale française taw ne léegi affaire bi grave na dañu seet naka lañu koy def pour loolu du am ku du ku officier yi nekk armée bi nekk Algérie du ñëw bi di indi problème en France. Mm-hmm. seen ñu xalaat xal ba seen xel dem ci kii ku dem ci général de lu tax seen xel dem vers l'Europe parce que bi nga xamee ne France dañ ko occupé woon Allemagne en ci pendant la guerre de Gaulle moo daw dem Londres wootee doomu France yi ne waruñoo bàyyi ñu ñu té def si nañ ko xeex mu ànd di xeex ñuy xeex xeex ak ñoom américain yëpp ba ak ñuy sotti ba daanee leer ñu ne comme kooku nag da amoon na xayma ba dimbali ba am lii nañ ko jëli te moom dafa demoon toog toog dëkkam rek colombé les deux les deux, les deux églises dem jëli ko c'était le 13 mai 1958 mu ñëw bi mu ñëwee sampaat beneen gouvernement bu bees moom général de Gaulle sampaat li ñuy wax cinquième république dafa beneen constitution boo xam ne euh, def dafa ne comme léegi France néew nañu ko doole li mu amoon ci ay cours yëpp yu bari dem nañu li fi des nañ seet nañuy manœuvrer. naxalte ñoom ba mën leen a moom te duñ ko xam moo tax ñoom ci seen biir dañu seet ne euh, nañ fexe bay ñu jox leen melokaan boobu mel mel ni dañuy dañuy xam dañuy yaakaar ne moom lañ seen réew moom lañ seen bopp moo di ne euh, compétence yi nga xam ne euh, communauté bi dugal taxaw moo ko yoroon nañu ko jox boo ko defee ñu mën a am président de la république mën a am assemblée nationale mën a dem ONU et cetera am des attributs de la souveraineté internationale donc lu jox mais nag économie moom koom-koom bi moom bu mu génn suñu loxo donc c'est c'est c'est indépendance bi ñu accordé fii deux pàcc la woon euh, politique ak économie waaw te loolu Euh, pour ki nga xam ne moo nekkoon premier ministre de Gaulle moo ko wax ne daañu leen jox indépendance mais nag ci ñi tëral nii te état bi nga xam ne mooy da koy respecté benn bi day doon li ñuy wax transfert de compétence maanaam dañuy jox ngeen di doxal dem ak dem beneen mooy accord de coopération mooy accord yoo xam ne di jëm ci affaire économique finance yooyu ñaari rek ñooy ànd doo jël bi doo tànn bi bàyyi bi paquet la woon voilà bu bu ko defee yoon gaañ d' accord ba ñu demee ñoom fédération du Mali nga xam ne Sénégal ak euh, ak ak Soudan waaw ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñu njëkk a négocié janvier ba avril 1960 ñu signé d' accord ne léegi jox na indépendance ci ci noonu donc il y avait onze accords secrets mais les accords les accords de Coffe dañ ko nëbb dañ ko gasoon suul waaw e ñu dem ci dem indépendance di doxal bàyyi tubaab yi nekk fii kon ne la lañu moomoon ci économie yi kon ne yore ko di kon ne di ko yore mais ba ba nga xamee ne Sénégal ak Soudan dem nañu indépendance ci euh, turu Mali fédération du Mali ñi nga xam ne dañ nekk Afrique yëpp ñoom itam ne ah, comme ñu am ne nañ dem ne genre ñu itam dañoo bëgg indépendance ñu àndandoo léegi dem Élysée ah, en France de Gaulle dañu bëgg indépendance de Gaulle ne léegi mu woo euh, Jacques Chirac ne ko euh, kii Foccart Jacques Foccart ne léegi ñii comme bëgg nañu indépendance jox leen indépendance mais na nga fexe ba bu ñu bu ñu France bi c'est-à-dire les signé les les fédération du Mali signé nañ ko signé rek après ñu joxe indépendance ñoom sax négocié wuñu ba léegi nag ñu jël loolu si. ku nekk si dem. boo gisee sax ni sa indépendance tegul loolu dañuy parce que ba euh, ki njëkk ki njëkk am indépendance mooy Bénin premier août 1960 ñu teg si ñaari fan 3 août ah Niger am nga teg ñaari fan 5 août Burkina ñëw nga teg 7 août Côte d'Ivoire ñëw. quand je 11 août kii Tchad ñëw que tey 13 août Centrafrique ñëw 15 août 17 ba Gop Gabon donc en un mois de mois ñu nekk indépendant ñëpp loolu mooy woon ne donc ils n'ont pas négocié dañu jël li leen def ñu dem loolu nag boo bëggee dëgg mooy li ñu topp ba tey waaw. ah est-ce que du looloo leen dugal yéen ci politique. yow ak ñi mel ni yow. ñu ne te loolu ñu ne dañuy dàqaluñ ci loolu. parce que ba ñuy xeex ba ñuy ba taxawalee partie africain de l' indépendance ñooy tuddee PAI c' était en mille neuf cent en septembre mille cent cinquante sept ñu taxawal ko di ko doxal di ko dundal di enfin di def propagande indépendance moom sa réew ñoo ñu ko ñoo ko ñoo ko njëkk njëkk indi tudde ko euh, euh, ci kàllaama wolof moom sa réew moom sa réew moom sa réew moom sa réew indépendance nationale immédiate c'était le seul parti politique bu ko doon def mais ñi fi nekkoon ñoom dañu d'accord ci ne ñu ànd ak li De wax ànd ak moom ce qu'on appelait la communauté franco-africaine ñu ngi 57 ñu ngi xeex 58 ci la référendum bi ñëw waaw référendum bi De ne bu fekkee ne dans la nouvelle constitution def nañ ci biir ne dañuy taxawal ak yéen coopération àndandoo boo xam ne dañ koy tuddee communauté franco-africaine boo xam ne lii mooy ay compétence am nii lañ koy organiser ku bëgg loolu nag nga woote non dem indépendance alors c'était en 1958 et mu ñëw fii def fi campagne def na Afrique yëpp dem na Madagascar dem na Brazzaville def na Côte d'Ivoire ñëw Guinée ñëw fii pour def campagne pour le référendum du 28 ñun ñun jeunes yi à ak PIA yi ñoo ko recevoir fële ci place de départ boobu ñu ci place portée ak suñuy pancarte boobu lay wax boo déggee ñu wax voilà très bien mais yeneen parti parti Senghor ak ñoom Lamine Gueye ñoom dañuy wote oui ñun ñu dañuy wote non alors y avait deux camps camp bi nga xam ne ci Sénégal ñoo doon wote non mooy PAI PRA Sénégal bu Ablaye Ly UGAO mooy Union Générale des Africains Noirs bu Dakar FIAF mooy étudiants yi nekkoon France ak UCM euh, Union culturelle musulmane ñooñu ñoo def campagne bi dugg Sénégal ne nañu wote noonu nañu wote noonu mais ñi ci des mooy UPS parti sengoor ak Mamadou Dia ak ak euh, Valdiodio Ndiaye ak Lamine Gueye et teg ci euh, marabu yi sëriñ si à l'époque nga teg ci aussi la communauté lébou ñooñu dañ ñoom dañ ne dañuy woteel bëy parce que Jean Louga bi mu ñëwee fii quand il a vu que mu y' c'était menaçant dafa dafa dafa woo sëriñ si waxtaan ak ñoom loolu boo demee ci téere bi nga xam am Diouf moo ko bind à la page 22 la lay raconté comment comment il a réuni les marabouts bay bay marabout jox la seen kàddu ne dañuy wote wuy la communauté lebo aussi dañ ne dañuy wote wuy dem nañ baax ne même bu fekkee non moo gagné sax ñun duñ ci d'accord ñun dañuy ànd ak France dem donc tu as vu yooyu ñoo ñoo ñoo amoon alors bi ñuy négocier indépendance nag mais ñi doon demande ñoo tuuti ñoo dem négocier indépendance mais ñu ñu doon ñu doon wax pour le non fekk wu ñu négociation yi. dañuy dañuy dañuy exclure UPS hein à travers la Fédération du Mali. ak UDSRDA euh, bu bu bu bu bu Bamako ñoom ñu négocier indépendance puis ay fekkuwul pra Sénégal Ablaye fekkuwul UGTAN fekku UGA fekkuwul USA fekkuwul FIA fekku ISEM ñooñu dañ leen dañ leen génne. xam nga nag loolu moo tax continue bi nga xam ne mënul jox indépendance bu mel nii mu mel moo tax ñu jël politique bàyyi ci wàllu économie bi mooy dem ba nëgëri. mooy dem ba nëgëri te saa yoo nekkee seen biir. am xalaatu xawa a tuuti ñuy doxle ñu dégagé la loolu mooy expliqué le premier conflit qu'il y a eu dans les rangs du Wouy en 1962 entre Mamadou Dia ak Senghor parce que su Mamadou Dia dafa commencé woon def ay politique yoo xam ne day changé réew Sénégal moom boppam dëgg-dëgg mu jël orientation boo xam ne moo gën ci réew très bien loolu moo tax ñoom jiñ ko kii coup d'état bien que mu wax leen ne du coup d'état parce que man maa yore lépp maay seen gëm ma du ma def coup d'état contre moi-même loolu mu leer to mais ñoom dafa laaloon loo xam ne waru koo laal parce que dañoo ne il faut que l'état respecte les deux transfert de compétence accord de coopération mais mun see commencé nag di di di di ronxat di laal ci accord de coopération ñu ne ko kii na na na dem mu dem alors est-ce que situation yooyu moo motiver xëy na ngeen sóobu ci PA yi dugg ci clandestinité xeex-xeex bu metti ba yegg ci ñu tas seen partie ñenn ñi ñu tëj leen ñeneen aussi jëlee ci ay jafe-jafe yu metti c'est-à-dire que bi nga xamee ne Senghor ñëw la la première chose c'est que mu mu nettoyer place bi nga xam ne kenn du wax indépendance kenn du wax mbiru euh, moom su bopp moom su réew et de suite loolu moo tax le le le 30 le premier août 1960 ñu tas PA yi comme ni ñu tasee Pastef <laughs> le 31 juillet 1960 donc presque un jour près kii le 31 juillet kii le premier août mm. alors donc ñu tas ku wax affaire indépendance ñu jàpp tëj ñu nag dañoo bañoon ne duñu bàyyi on est rentré dans la clandestinité parti clandestin PA yi en 1962 on a suivi notre premier congrès à parce que bi nga xamee ne ñoom maas yi ñu jàppoon Saint-Louis ak bi ñu disparaître bañ leen jugé ba ñu génn l'État dafa defoon appel ñoo ko ne léegi da ngay génn yow dem exilé wu dem Bamako parce que Bamako ak ak ak euh, Sénégal déggootuñu woon parce que le 20 août 1960 dañu leen dàq dañu tas fédération bi génn leen dugal leen saxaar yóbbu kon ñu dem foofu mu di recevoir ñu jox ñu fa place baax ñu nekk mage nekk fa foofu lañu def suñu premier congrès en 1962 mais ñuy liggéey di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey ba nga xam ne euh, événement 68 yi am na lu ñu si lu ñu liggéey ba nga xam ne euh, euh, réew mi ñu ngi ko yëngal di ko yëngal ba sur élection yi am ci ay changement parce que il faut nit ñi xam ne élection dañ ko waxoon élection mais du woon élection parce que amuloon code électoral. de le premier code électoral date de 1976 c'est donc euh, 16 ans après après l'indépendance le deuxième date de 82 le troisième mooy code euh, Kéba Mbaye consensuel 92 euh, et cetera donc loolu moo indi xeex boobu ñuy xeex pour. continuer am indépendance parce que li ñu amoon li ñu am du indépendance la la preuve dañoo dañoo dagg économie bi jox ñu politique bi ñu ne ñun dañu pour ñun il faut ñu réunir ñaar ñëpp yore suñu économie di ko doxal di ko di ko jariñoo di ko jariñoo suñu réew pour ñu comme ni ñu ko waxee li ñëpp bokk ñëpp jot ci loolu mooy li li ñëpp bokk ni ci ñëpp bokk na ñëpp jot waaye ñi nga xam ne ñoo ko moom te mënuñ cee jot loolu dafa war a dakk dafa yàgg waaw et ba Mamadou Dia demee Senghor dafa benn constitution en 1963 boo xam ne dafa dooleel président de la République loolu la ñuy wax euh, régime présidentiel président bi mooy lépp noonu la doxalee ab Diouf noonu la doxalee Abdoulaye Wade noonu la doxalee Abdou kii fi nekk noonu lay doxalee c'est-à-dire benn constitution boo xam ne nit kii mooy nekk président de la République nekk buur ak bumi waaw loolu. Senghor moo ko moo ko institué te mooy dox ba tey la constitution 1963 Abdoulaye Wade bu ñëwee en 2000 il ne beneen constitution mais changé si dara le régime est demeuré le même mooy régime présidentialiste boo xam ne ki nekk président de la République mooy def lépp mooy moom mën na mën naa am euh, dogal ci justice mën na am dogal ci parlement bi donc loolu mooy li tax réew mi mënta dox Parce que qu'il faut nous séparer pouvoir yi pour qu'on soit dans une véritable démocratie dans la dans une véritable république loolu nag xëy na ci texte yi ak bind yi ak yooyu mi ngi ci waaye doxalin wi ak ni ñu koy doxalee ak ni ñu ko gisee ni ñu tegee bët di ko dégg àndul loolu moo indi problème yi ñu am tey. Eh. moo ñu am tey loolu aussi mm-hmm. man xeex moo doon xeex ci PAI yi te ci 1957 ba nëgë nii Eh, moom si réew bu tax moo doon xeex amagul. Hmm. nekkul. kon boobu ba tey moom ñu suñu bopp. moom ñu suñu bopp moom ñu parce que ni ma la ko mën a mooy réew eh, day am li ñuy wax alal alal ci biir suuf alal mbay ci kaw suuf alal ci jaww ji eh, alal ci poor yeeg yëpp booy dugg réew mi fi nga duggee. loolu alal la joo xam ne kenn munu ko xayma géej gi ay jën yi ci nekk da nga da nga kii mais boo xoolee nag li nga xam ne ñu ñun amuñu indépendance mooy accord de coopération yi amoon ba tey mooy dox. mooy accord voilà benn xaalis bi doxalee ñu tudd ko CFA mi ngi noonu moomuñu ko parce que dañ ko doxalee noo xam ne lépp loo xam ne suñu àll bu yëg bi suñu dañ koy déposé. ci trésor France bi mu koy gérer au départ c'était à cent pour cent muy xaw cooli li bi ñu ko à cent léegi ñu ngi cinquante pour cent et cetera yoo xam ne dañ ko da koy déposé foofu euh, xoolee làkk wi làkk yi ñuy làkk du suñu làkk ñu ñu ko imposé ci jàng ci lañuy doxalee réew mi et cetera te làkk boobu nag dafa dafa xam nga dañ naan Sénégal benn bopp la duñ ko xar ñaar làkk boobu duñ xar ñaar ñu ko ñu ko ñu ko xam ah. ak ñu ko xamul. dem ba ku ko xamul sax ñu xeeb la. voilà ku ko xamul bokkuloo. da ngaa bokk. te nag ñoo ëpp. officiellement fii bi ñu wax mooy cinquante quatre alphabet. Mm-hmm. xamuñ ci français dara. te même nee aussi li ñi nga xam français mokkal ko man ci wax seen soxla yëpp vingt neuf pour cent la. Ah, loolu dafay indi problème yoo xam ne. Euh, da ngay gis nit ko Sénégalais. en marche en yi wala nga dem ci euh, arrêt à Forougis et des jeunes am kii am euh, parce que jànguñu ils sont exclus dañ leen dañ leen génne dañ leen seppi sànni ci ni réew mi doxee parce que li dans la fonction publique mënoo ci dugg te déggoo français président de la république sax mënoo koo nekk jamono waaw moo nekk inspecteur des impôts déggoo français moo nekk inspecteur des douanes déggoo français moo nekk moo nekk commissaire de police déggoo moo nekk magistrat déggoo français mënoo jàngale école université déggoo français donc loolu ñooñu ñoom dañu leen dañu leen isolé eh, c' dañoo war a dellu suñu ba làkk ndax suñu làkk suñu làkku réew nga xam dañ koy dañ di ko dox bu ko defee nag on aura ba benn bopp benn man man je dis que Sénégal nekkul benn pakka ñi jàng ñooy ñooy ñooy nekk ci kaw ñi jàngul di def leen neex moo nekk ingénieur munoo koo ko nekk léegi ñu ngi wax technologie kii de l'information de la communication boo jàngul doo ko xam donc c'est c'est c'est euh, cette fracture là mm. il faut ñu jëm ko delloo pour que doomu Sénégal nekk yem ci lépp ci ak fépp waaw loolu mooy tax ba ma demee nag sama démb ci loolu laa doon xeex di ko xeex ba ma gis ci réew mi benn parti politique boo xam ne la ma doon xeex man ba mu nekkee ndaw ba nëgë ni yëkkatiwaat na ko di ko xeex ma dem ñëw leen jàppale waaw loolu moo indi sama relation sama dugg ci Pastef waaw ak Ousmane Sonko actuellement mm. man inspecteur des impôts laa woon comme bi mu nekkee inspecteur des impôts xam nañu xam nañu affaire finance te inspecteur des impôts depuis loo xam ne du caaxaan parce que ñoom ñooy indil xaalis bi doxal réew waaw ñoom ñooy xalaat ni ñuy def ba xaalis boobu sakkan ñoom ñooy xalaat ni ñuy def ba xaalis boobu dugg ñoom ñooy xalaat ba yan façon impôt ñooy ñëw fii naka la ñuy yokkee fii la ñuy wàññee fii donc ñoom ñooy carburant bi nga xam ne mooy doxal état bi alors ma gis na ñoom ñu ne dañu war a attaquer système bi changer li fi nekkoon am la véritable indépendance nationale une véritable souveraineté ma ne ah gars yaa ngi lii laa doon xeeb. nekkoon démb c'est comme si l'histoire se kon nag léegi damay ñëw jàppale leen. Hmm. jox leen li ma xamal ko si néew wax leen ñu li ma xamal ko si néew eh, jox leen sama expérience bi ma am ci àdduna ci ci xeex politique yooyu pour que ñu gën a am doole pour que enfin. ñu ñu ñu am une véritable indépendance et je pense que bu Sénégalais ñëpp ñëpp jàppee bu ñëpp jógee dox wax ci li ñu war a wax takk takku takku bu baax góor ak jigéen mag ak ndaw le 25 février 2024 Ousmane Sonko va être le président de la République et le Sénégal va changer du tout au tout waaw loolu nag ci la ñuy liggéey actuellement mais dañu am ñoo xam ne ñoom lañ jàkkaarloo ñoo xam ne ñooñu dañ ne loolu du am ah loolu moo tax abi dana métti dana saf <laughs> waaw que voilà euh, Sonko Pastef dañoo am doole joo xam ne tant que nekkuloo ci biir doo ko xam mm. mais c'est un parti puissant boo gisee même dans la diaspora ni muy évoluer rek te fii aussi un parti boo xam ne ñu ngi wàññi ay un un mille mille prisonniers ay cadres yëpp ñu ngi kaso bi te parti bi di fonctionner loolu moo xam ne moo woon ne c'est un parti très puissant c'est c'est c'est-à-dire c'est que ñi si ñi nekk ci biir duñu ni ñoo xam ne ñi dañuy jaay seen ngor waaye dañuy dañuy ut dara mais ñoom dañu jox seen bopp comme don de soi pour la patrie dañ jox seen bopp pour seen réew pare nag à tout et d'ailleurs la preuve c'est que en en mars deux mille deux mille am nañu ci dee réinvite la MIJD, des, des jeunes, et il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont parce que dañ leen dañ leen topp ñu bëgg leen jàpp te dem nekk ci ci mu ëpp njëriñ ñu dem bien ci bitim réew di fa liggéey donc loolu mooy woon ne euh, parti am doole mais nag li mu songu dafa dafa du dafa yomb. dafa mel ni accord yi Mamadou Dia laaloon. waaw <laughs> ni diisee woon. li mu song di système bi dafa am doole. te euh, dama ko wax rek ca maam ya ba nëgë ni ñoom moo fi boobu moo fi nekk bien ñu ngi wax boo xoolee da nga naan am nañ indépendance ah, président de nii président assemblée nationale ngi nii magistrat la ngi mais loolu tape rek la du loolu du c'est pas la vraie mooy ñu moom suñu zircon bi ñu moom suñu phosphate yi ñu moom suñu fer bi ñu moom suñu suñu suñu suñu pétrole bi ñu moom suñu gaz bi moom suñu jën yi nga xam ne ñoo nekk si Atlantique ñu moom ñu moom suñu suuf suñu payee ñu suñu jaww ji ñu moom ko port yi nga xam si bâtiment ñu moom ko loolu mooy indépendance loolu c'est ça la souveraineté suñu xaalis ñu ñu moom téye ko suñu xaalis bopp di di di di di di di di di weccante waxtaan ci suñu suñu suñu suñu la suñu làkk bu ñu def bu ñu yeggee foofu nag am benn problème mais ñu nga xam ne nag système bi fi nekk ci la ñuy ci dund di ci nàmp defal seen seen seen bopp defal seen famille defal seen seen àndandoo di jël xaalis réew mi di ko pasar pasare jël suufu réew mi di di di ñooñu ñu téye ànd système bi ne dafa war a wéy mais comme nag Pastef def ne seen bi la xeex ñooñu il sont prêts à tout pour Sonko du ay fi mu fi mu jëm dem nañu baax am na ñoo xam ne dañ naan sax dañ ko war a rey hmm. waaw donc xam nga loolu c'est c'est loolu loolu ma way bi ñuy xeex du yomb ñun on est conscient de ça te dañ koy wax xale yi dañu jeunes yi li ñuy li ñuy war a def pour am li ñu bëgg des na waaw genn waar gi sax defaguñ ko il faut qu'il soit prêt à tout pour que ñu mën a euh, daanee système bi parce que la c'est ça notre objectif waaw loolu mooy indi indépendance parce que indépendance nationale souveraineté nationale égale disparition du système en vigueur depuis la constitution de de de Léopold Sédar Senghor le 7 mars 17 mars 1963 loolu ñaari force yooyu ñuy affronté sur la scène politique nag les regroupements vont se faire de ces deux forces là waaye force bi nga xam ne dafay dafay dafay dooleel système bi ak force bi nga xam ne dafa jóg muy mbëkk système bi mu daanu ma gas ko suul loolu politiciens yi fi nekk yëpp ak li ñuy bari bari bari yëpp foofu loolu mooy natukaay bi yow boo jugee def politique ku bëgg a yeewu ku bëgg xam ci kan la danga naan noo def ak système bi loo xalaat système bi loo bëgg système bi ñett yooyu question il faut que les le peuple pose à tous les prétendants hein noo def ak système bi loo xalaat ci système bi loo bëgg ci bi voilà la la question de fond qui permet de déterminer qui est qui puis actuel fi ñu nag li ñu xalaat mooy na dee na dee dem li ci liñ ci bëgg mooy jële ko fi lu lu loo xam ne lii euh, ay suñu pexe yëpp ci loolu lu jublu parce que xam nañ ne yàgg na fi yàgg naa def euh, def lu bon yàgg naa yàq te illustration bi nga xam ne moo moo xew te lu xew di njàmbat tey jii li woy ne tax système bi dañ ko fay war a jëlee parce que loolu moo indi lépp mooy les cadavres de jeunes qui viennent mourir sur la plage, ici chez nous, en Mauritanie, ci euh, euh, Guinée-Bissau, au Maroc, et cetera ay xale yoo xam ne di àll bëgg dem bàyyi seen réew ginnaaw parce que tekkiwuñu seen réew loolu c'est l'illustration la plus parfaite du fait que nos richesses sont entre les mains non pas des nationaux mais des étrangers et loolu tant que dindi ko du ma nekk parce que le problème il est simple on parle de capitalisme capital bi c'est le capital capital mooy alal alal alal la ah jur di jur boo liggéey ba at mi jeex da ngay calculer mu li wax PIB la production intérieure bu yokkoo waa réew mi ñoo ko liggéey mais loolu pour ñun ci suñu xam-xam yokk loolu yokku par lay mujj yokkul loolu ñuy loolu ñuy loolu xam ne si ñax ñax sax ñax réew moo koy indi ci usines yi ci marché yi ci chantier yi lépp nga xam ne ouvrier yi seen ñax liggéeykat yi bu at mu jeexee dañ koy xayma mais nangam la production intérieure brute mooy lii la réew mi ci at mi lii la ñu euh, euh, liggéey mais bu ci jëlee li nga xam ne moo war a fay li liggéeykat yi yëpp ak machine yi yi nga xam ne employé li ci des euh, pour ñun ñu ngi ko plus value mooy ngañaay li ci tegu ci liggéey bi léegi nag ngañaay loolu fu mu jëm parce que loolu moo indi ay emploi dañ naan bu fekkee ne ngañaay day des ci réew mi emploi dañ mas def dafa yenn usine yeneen yeneen tool liggéey xale xale yi liggéey liggéey loolu lañuy ñuy wax accumulation du capital national mais loolu comme nag alal ji moomuñu ko borom alal yi soit français la soit européen la soit marocain la soit soit turc la soit chinois la soit kii la dañ koy jël tonni ko yóbbu seen réew bàyyi ñu xott loolu la ñuy wax économie extravertie loo liggéey ba mu ba at mi jeex da koy jël au lieu ñu. ñu dajale ko ci réew mi liggéeyal ko réew mi comme moomuñu ko ñoom seen réew la ñu yóbbu ko defaree. ba noppi nag encore di ñu di jël al di ñu ko delloosi nan dañuy dañuy aider. aide publique au développement investissement direct étranger fekk ne puis dañ ko jëlee yóbbu ko kooku moo tax emploi amul moo tax ay dem di dee ci gi ñaareel ba euh, li nga xam ne day day meññ di génn suñu suuf nga wax les ressources naturelles dañu ne ci suñu constitution article vingt cinq un def ne les ressources naturelles appartiennent au peuple loolu dañ ko bind ñu ne lépp luy alal si réew mi askan bi moo ko moom ñu ngi ko gën a leeral sax gannaaw référendum 2016 bi. waaw donc yokk ci ne elles sont utilisées pour l'amélioration de ces conditions de vie dañ ko jëfandikoo pour nekkinu askan wi gën a naat problème bi yëpp nag mu ngi ci conditions de vie yi est-ce que les conditions de vie du peuple sénégalais s'améliorent ma réponse est non loolu sax na ba xale yi. di dem ñaareel ba li nga xam ne dañ ko génne ci suñu suuf si muy wurus bi di weñ bi di zircon bi di fas di di phosphate bi di pétrole bi gaz bi les yi nga xam ne duñ ko dañ ko waroon def fii ci place pour créer des emplois ces ces ces ces transformations aussi dañ sont exportées parce que c'est à l'état brut qu'on exporte l'extraction des ressources naturelles ici bu ñu bu ñu génnee wurus ci suuf noonu la koy jël yóbbu bu ñu génnee fer bi noonu la ñu koy jël yóbbu bu ñu génnee zircon noonu koy yóbbu alors que bu ñu ko doon transformer sur place état de transformation yëpp dañuy am ay création d'emploi yoo xam ne dana mën a la jeunesse mais loolu amul donc à la non seulement nos richesses soo exportées à l'état Mais quand il s'agira d'accumuler le capital après la création des richesses, ces richesses créées-là hein, ne vont pas dans les poches des nationaux, mais dañ koy exporter ñaari exportation yi moo tax ñu ndóol moo tax réew mi doxul moo tax xale yi duñu am duñu am emploi l'État nag croit que am na ay projet xëy yu ndaw yooyu loo xam ne ci impôt la ko ci impôt la ko jëlee mais c'est pas ça ci règle le problème parce que impôts yi dañ ko jëlee ci ci ci richesse nationale bi boo buggee nag ci loolu aussi nga ciy créer emploi doo dem il faut ñu reprendre en main il faut ñu nangu il faut ñu foqati suñu alal ji nga xam ne ñoo ko moom yàlla ñu ko dugal suñu suuf si keneen moo ko dafa jot waaw on l'a essayé depuis 1960 léegi depuis 2014 avec la création d'un parti comme PASTEF qui s'est déclaré anti-système foofu la affaire bi nekk du yomb nag parce que mi ngi ne mel ni rek bëgg a déq ci benn guy guy gu mag ko déq ci guy yombul mais incha allah daañ ci yegg léegi euh, démb PA yi commencé woon ngeen xeex bi après ni mu mujjee mooy tas nañu PA yi ñu bëri ñu jàpp leen euh, xeex ba daanaka foofu la mujjee yem euh, su fekkee dégg naa la da ngeen a wéeroon ngànnaay yi ba keroog ku mel ni yow ngeen gis Pastef taxaw ngeen ne ñun kat lañ doon xeex démb gis nañ ku gàddu xeex bi lan nga jàpp ne defoo leen ko woon démb ak PA yi pour am ndam te tey bu ngeen ko defee di ngeen am ndam lan moo leen manqué woon démb te tey peut-être ñu mel ni yow bëgg ko indil Pastef ak Ousmane Sonko pour que enfin xeex boobu mën a sotti. voilà léegi léegi loolu c'est laaj bu bu am maanaa bu am solo la parce que day day leeral cest à jamono la ak jamono da comme tu da nga tey euh, jamono yi nag dañu ñun suñu jamono jamono néew xam-xam la woon. néew tukki la woon néew yeewute la woon. néew yu pexe naturellement néew yu pexe bon il faut il faut que nit ñi puisse baax ñi nga xam ne à l'époque dañoo jóg di xeex pour l'indépendance mais ñi ñu jàkkaarloon muy askan wi yeewul woon ñu woon ci ay ay su ay ay situation yoo xam ne dañ leen ngalaaboon lëlëmal seen bit seen seen xel seen seen seen xel ak seen xol ba nga xam ne. li jamono gi gi doon réer seen yoon nekku ci woon xale yi loolu à l'époque les jeunes aussi seen yoon nekkuñu ci politique ñoon ci ay ay football ak ay ay yoon seen nekkuñu politique ñaare ba information ni mu demee tey aussi nekkuñu boobu bu ñu mel mel noonu donc c'était dans des conditions extrêmement difficiles dañu doon évoluer mm-hmm. euh, li nga xam ne nag moo ñu gënoon a gënoon a kii c'est cette absence de liaison intime entre ñun ak les population waaw loolu aussi. kon loolu lu ngeen amul woon démb la. amul woon tey eh, mu nekk atout eh, ci ñiy xeex tey. te boo xoolee boo xoolee booba benn université rek moo fi nekkoon muy daal université Anta Diop l' école publique moo fi nekkoon. waaw parce que doom bu rëmm école privée yëpp ñi xam ne ñoo ñoo échoué woon ci école privée ñoom dañoo école privée amoon na aussi euh, euh, euh, diffusion de l' information. boo xam ne boo amee bu ñu amoon benn tract tey jii bu ñu ko defee pare. dañ ko dañ ay paquet bi jëm Tamba bi jëm Saint-Louis bi jëm Ziguinchor bi jëm Thiès bi jëm mais pour que ngeen di làqatu di ko taf. pour pour pour ba taal boobu yegg yegg Ziguinchor il faut une semaine est-ce que tu vois <laughs> tey nag c'est ici. si tu attends avec les réseaux sociaux da koy diviser en temps réel. Mm-hmm. c'est-à-dire on est arrivé à supprimer presque l'espace et le temps. lu yëpp nag dafa dafa wane ne les conditions ne sont pas et aujourd'hui Nous avons huit universités publiques. Huit universités publiques. Il y a, trois à Dakar. Il y a l'université à virtuelle ak Amadou Mahtar Mbow. benn Thiès. Ziguinchor. benn Ziguinchor. benn Bambey benn Saint-Louis. Hein? benn benn Kaolack. sur sept plus maintenant les donc il y a cette masse de jeunes qui se conforment et qu'on jette dans la rue. C'est pourquoi la, la jeunesse s'intéresse à la politique maintenant, contrairement à, à notre époque. Aujourd'hui, quand tu es dans les réseaux sociaux, avec les vidéos, les audios, mais c'est la diffusion en permanence de l'information et des choses. Les gens comprennent, les gens voyagent. Aujourd'hui, la diaspora hein, et, et fait un travail immensément euh, euh important et fait que nous, ils ont en liaison avec leurs parents et amis ici, mais vraiment. Am influence aussi, Am influence, parce qu'ils ont financé certaines opérations. donc loolu mooy différence bi loolu aussi euh, les les gouvernants duñ ci prêter attention ñoom ils veulent faire comme les Senghor comme les Abdou Diouf les. yaakaar ne la woon moo fi nekk ba tey. c'est pas la même chose ku ko loolu tax ñuy juum c'est pourquoi duñu duñu dem moo tax ma ne man je suis ça va finir. Et quand tu vois ce ba ñu dàqee France. voilà bi ngay wax ñu dàq France Maroc dàq ko Algérie sama xel ci dàq bi ñu ko dàq Mali ak Burkina la dem. nous avons sur la la de Bandung. qui est de de 1955 qui avait demandé aux gens de lutter pour l'indépendance nous on a on à mi-chemin mais Vietnam dem na. am na seen monnaie seen langue seen langue vietnamien la ñu làkk seen seen monnaie ñu tudd dong dong la tudd ah Laos dem na am na seen làkk c'est le Lao am na seen mone ñu tuddee ko euh, Kip Cambodge dem na am na seen langue xemer Khmer la ñuy la te te amoo tey ñu am réel réel comme monnaie te ba fa français nekkoon loolu amuñu ko day amoon benn langue muy français. ak benn ministre de la pièce indochinoise pièce sud le Maroc dem na mais y avait le franc marocain franc moo fa nekkoon euh, ak franc ñuy làkk français mais bi ñu aménagement léegi arabe la ñuy làkk am na le dirham le dirham marocain Tunisie dem na day arabe la ñuy làkk te am nañu dinaar dinaar tunisien mooy seen xaalis Algérie la arabe am nañu dinaar algérien ñun nag depuis quarante cinq ba tey CFA CFA CFA CFA ak ah, français français hein toto tap tap xamul lan na je pense que on est en retard de combien d'années parce que la l'accord de Bandung date de 1955 45 ans plus 23 euh, ans ça fait 60 68 ans on est en retard de 68 ans par rapport aux autres pays donc loolu nag il faut ñu rattraper et c'est le PASTEF qui incarne ça C'est Sonko qui est 19 qui incarne ça. Et ceux qui nous ont retardés, ils vont faire tout pour s'opposer à nous. Nous aussi, nous allons faire tout pour les abattre. Rattraper le retard. Euh, pour rattraper ce retard-là. Il est temps qu'on rattrape. Et je parce que la jeunesse y est, les femmes y sont, les marques aussi y sont. Mmh. Donc, Comme yow, magi Pastef mais mais rattraper retard boobu Mame am na njëkk. am un coût. manifestation yi bokk na ci. yàqu-yàqu yim jur. Euh, ak ak euh, yàqu-yàqu yi ak. Oh. dellu ginnaaw ci wàllu économie est-ce que est-ce que situation bi. feeñoon na démb dundoon ngeen ko ampleur bi mu am jàpp Ousmane Sonko tëj ko tëj ay détenus ñu naa leen ay détenus politique tëj ay militants ay sympathisants. Euh, ak yàqu-yàqu yi chaque période am na am na ses ses de lutte ñu dañ daan xeex dañ daan jàpp tëj. Moi, j'ai fait deux fois la prison, une fois à, à Durbel, une fois à Thiès. D'ailleurs, dans le Jobel Kik, ça c'est ça raconte cette histoire-là. Donc, Lolo, amoon na amoon nañ ay jàppaan ñu jàpp ay ay ay camarades fii à Dakar en prison mais nag empereur bi nga xam ne c'est signé Macky Sall <laughs> des milliers des milliers milliers et naan kooku musu am. Mm. deuxièmement euh, li may wax rek mooy li tu as bien fait de me poser cette question am na am na moo tax je ne suis pas d'accord avec cette parle de paix de ceci et stabilité stabilité et cetera sont en paix et sont stables ñu koy wax yëpp il faut nga creuser <laughs> kon ko wax rek il est en paix et il est stable. kon yow li nga gëm mooy pour faire des omelettes il faut casser des œufs. ça a un prix. ça tu parles le Vietnam dañ fay jën bi dañ ko les Algériens dañ ko les Maliens dañ tu prends la, la Chine de Mao da ko fay dañ ko fay pourquoi aujourd'hui on parle tant de la Chine mais c'est pas tombé du ciel dama la chinois yi xam ne bu ñu jaar ba expo ko la deuxième guerre mondiale bi ñu wax léegi bi ñuy commencé France yi ña li ñu payé pour pour da pour dax Allemagne foofu combien ils sont payés te ñëpp ñëpp a ngi doon wuti France Amérique Amérique gi ñuy wax léegi ñaari guerre am na fa la la guerre de l'indépendance pour de huit ans et la guerre de sécession hein loolu moo tax ñu ñu assis xam nañu dañoo ils se sont battus ils ont payé le prix kii faut ñu nag damay wax toujours ne dañoo leboon indépendance ñi ko doon négocier dañ ko leb mais jën jënd jënduñu ko ñun nag leb bor boobu ñoo ko war a fay te tant que fay ñu ko ay caaxaan def le pays continuera de de sombrer les jeunes continuent de partir parce que moo tax ma ne le projet de PASTEF dañ ko war a réaliser il faut que le peuple sénégalais jóg taxaw xeex quel qu'en soit le prix bu ñu dégg ñuy wax affaire yi jàmm ak affaire euh, stabilité yooyu ñooñu ils sont déjà assis te seen assis assise boobu yëpp nag suñu xaaj rek la suñu àll rek la waaw loolu nag lañ bañ ñu ñu ñu ñu yëkkati leen ci seen foofu teg teg ñeneen moo tax ils sont prêts à tout mais est-ce que ni nit ñi tekkaaralee gannaaw bi ñu tegee loxo Ousmane Sonko taxul nga xaw a ñàkk yaakaar tuuti ci euh, ndam li ngay wax ni ne Pastef mun na ko am ci kaw système bi. non non c'est-à-dire que loolu aussi mooy euh, fi nga fi nga fi nga xoolee bu fekkee ne da nga toog ci biti di xool ne dañu tekkaaral da ngay lan ngay gis. mais boo nekkee ci biir da nga xam ne tekkaarul ñu. Ah. c'est ça le problème c'est-à-dire ñoo ngi seet. quelles les mesures appropriées qu'il faut apporter. kon ba tey yéen a ngi xalaat ci loolu. mais c'est sûr c'est sûr. pourtant Pastef tas nañ ko de. parce que pourquoi parce kon yéen tas bi ñu tas Pastef yëgoo leen ko yéen. donc oh, c'est la le papier. maintenant si judiciairement parlant ñoo ngi ñoo ngi ñu koy attaqué. attaqué pour ñu. pour le coup ko. mais comme di comme le dit certains même si Habib Sy wax mi ci xol yi. c'est des gens qui sont déterminés te loolu rek mooy seen mooy seen ëllëg. loolu mooy seen ëllëg parce que ñu fi nekk de Senghor à Macky en passant par Abdou Diouf Abdoulaye Wade j'étais là dans un système bien précis système boobu moo ñu jural lépp nag tey li ñu am moo ñu ko jural waaw y a un parti qui s'est dit moi je fais face je suis anti système mooy Pastef et son chef Ousmane Sonko doomu Sénégal jigéenu Sénégal góoru Sénégal béykatu Sénégal ouvrier Sénégal jigéenu Sénégal marchand bu Sénégal ah dégg nga koo xam ne kii yaa ngi daan si doole daan si ñax yaa ngi dund si ñax da ngaa war a jóg taxaw pour projet boobu la ñu samp ko parce que foofu la ëllëgi Sénégal nekk foofu la ëllëgi doomu Sénégal nekk foofu la ñu fa fexe ba jot ñi nga xam ne raw nañu ñu ñoo àndoon nekk des colonies ñoom dem nañ bu yàgg ñu nekk di taxawalu parce que simplement France dañoo ngarab mais nag am naa mbégte parce que gis naa tey boo demee boo boo si si pays yi nga xam ne France dañ naxoon yëpp ñu ngi commencé di fippu ñu ngi fippu parce que dafa jot depuis cinquante cinq conférence de Bandung ba nëgee ñu dañuy nelaw waaw y a eu de des des prises qui sont qui ont dañ leen ñi dañ leen rey comment Sankara dañ ko rey et cetera yëpp parce que daf doon essayer moom tam génn mais aussi moom tam doon jamono joo xam ne euh, yeewute bi bariwuloon njàng bi bariwuloon et cetera mais bu doon nëgën nit ko def bu doon tey la nga xam ne réseaux sociaux yëpp kenn du ko mën loolu moo tax li ñuy fexeel euh, Sonko di ko fexeel Pastef duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko mën a duñ ci mën a yegg parce que euh, je di que Pastef bu daanu rek benn fukki junni Pastef taxaw Pastef donc euh, euh, militant Pastef bu daanu mille Pastef taxaw loolu mooy doole Pastef waaw c'est un grand partie parti boo xam ne euh, boo koy caaxaan da nga ne ci biir rek mais boo nekkee ci biir gis li ñuy def la preuve innovation majeure bu ñu fi indi c'est le financement interne des nekkul benn nit mooy génne ci poche am di joxe. waaw et puis dañ ko la dernière bi plus ay trois cent et quelques millions. loolu loolu loolu mooy ne loolu moo aussi quand prendra le pouvoir c'est la même chose qu'on va faire on va se débarrasser de plus en plus de la dette on va se débarrasser on va compter sur nos propres forces on va bâtir le pays avec nos propres moyens takk suñu digg takk suñu mais def une organisation boo xam ne daf ñuy permettre en un rien de temps def ay jéego yu bare bare bare on a déjà tout ça tu vois le le pouvoir en place bon il faut le à chaque fois que nous avons un programme dañ koy nasaxal. nemmeeku tour dañu bëggoon wër Sénégal carré si département yi di waxtaan ak waa waa waa waa àll bi wax leen adduna ni mu demee dañu bëgg mais dañ koy soppeeku. La dernière initiative de, de Sonko mooy il avait un programme de faire la tournée des maires di waxtaan ak ñoom ne xaay bi ni ngeen ko gérer bu baax bu kenn laal mais ñaar la ci def rek wala ñu ñu donc tu vois nous on est on a on est xam ne ñu bëgg parce que dañuy on a tiré les leçons du passé nous man personnellement j'ai été du passé et je suis du présent donc je peux dire aux jeunes lii la woon lii dañ mooy lii et je suis convaincu en tant qu'inspecteur des impôts je connais ce que c'est que la fiscalité je connais ce que c'est que les impôts directs et indirects je connais ceux qui paient les impôts et ceux qui ne paient pas les impôts ma xam ne am nañ moyen defal suñu réew te buñ ko ci jaaree rek dañ jaar c'est le projet de Pastef boo xam ne les jeunes sont prêts à donner leur vie et ils en ont fait la preuve ba tax ñu xam ne les gens sont paniqués en disant doomu jàmm ñu yéen kër du ñu doomu jàmm ñoom ñoo ñoo xam li ñu bëgg te nag l'indépendance réelle c'est pas la petite bourgeoisie moo koy indi c'est le combat c'est la détermination c'est l'organisation c'est le vouloir de vouloir changer les choses transformer le pays loolu muy indi indépendance waaye nag ah toog rek mais ne añ bi pare nga ñëw añ. loolu du indi indépendance de. Ah, ah, il faut ñu xam naan attaaya yooyu dañuy xam ne bu ñu bu ñu si xam ne indépendance am na njëg waaw il ñu def ci njëg am na nag xëy na ñoo xam ne dañ xamuñ li ñuy wax di ko wax mais am ñoo ils sont conscients du fait que bu ñu naan Sénégal jàmm la bëgg nañ fa xale ñi dañu kii. seen intérêt donc moo tax mu wax loolu seen intérêt kese kese mu tax loolu mais réew il faut mu bëri il faut mu xeex il faut mu sonn il faut mu ñax il faut dégg nga mu am mu am bëgg-bëgg mu jaral ci lépp nag pour mu avancer tant que yëguñu foofu Sénégal du soppeeku. Hmm. yaakaar nga ne li ngeen dajoon yéen soo ko dina ko daj parce que maa ngi tiim sa jugement. Euh, euh, procureur de la République garde de so euh, la yónnee lettre bi ñu cay wax la lay toppee la nga def bokk na ci voilà lettre boo joxe woon lettre balaa benn ah, tract boo boo yóbbante woon li ngeen dundoon noonu yéen yaakaar ngeen ne njëkk loolu itam wala lu ko ëpp moom la ñu nar tey la lutte, la lutte toujours a des, a des, a des, a des, a des conséquences. Hein? cest li ma dama exemple jox si bi mm. c'était en en 1961. oui le 14 décembre. 1961 donc euh, loolu moo ne à cette époque déjà il y avait des fils du pays qui luttaient et on a continué à j'ai parlé de des événements de 68 on on les événements de 68. hein il y a, il y a eu les élections de, de 80, 80, 88, 93, il y a eu la, de, 2011, il y a eu les événements de, de mars 2000, 2021, juin 2003. C'est le peuple qui vote qui sont la locomotive du pays. Du, du pays hein. loolu amul woon pays du changé mais après d' autres am public non Sénégal benn bopp kenn du xar ñaar Sénégal jàmm naa xam et te ñoom ñu ngi toog ba baax magasin yi c' rempli seen compte banque yi rempli am na compte même am na ñu jënd kër fu nekk ba jënd kër et cetera ñooñu bëgg jàmm la ñu bëgg mais jàmm joo xam ne dafa dafa dafa sukkandiku ci euh, métit ñàkk euh, dund koo xam ne dafa labo ba indi un jeune yaayam jaay jaay ay gànjaram dem jox ko mu dem guddi dugg ci bateau dans à l'aventure dugg ci géej gi nga xam ne yàgg tuub ba yàgg ñu gis ko mu teer néew bi teer teer ci ci daay ci tefes gi kooku boo ko nee jàmm jàmm jàmm ko loolu loolu loolu du jàmm nga jàng ba am sa diplôme liggéey un an deux ans nga dem ci biir nga dem service de commencé les cheveux commencent à blanchir ana jàmm ji loolu loolu du jàmm du jàmm te man am na solution am na solution solution baa ngi fi mais ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ci ci boppu réew mi c'est ñoom toog nañu yëg si nañu ak seen ñu ngi àndal di ko di yore réew mi ñooñu nag dañoo bëgg jàmm ils ont raison de dire que jàmm la ñu xam réew mi jàmm la xam mais je dis que c'est pas vrai il faut lutter quel qu'en soit le prix mais y a des y a des pays Il y a des, il y a des gens qui sont jusqu'au peloton d'exécution. Il faut ñu dem ba foofu que joxe naa sama bopp don de soi pour la passer sama réew jaral na ma lekk sama réew dañ ko nopp suñu alal ji dañ ko téye loolu dafa dañ suñu xale yaa ngi dee ci géej gi dee ci désert bi xale yaa ngi jàng ba ne alal amuñu liggéey te loolu mën naa dañ am na yoon wax mu jaaree mu dañ mais yoon woowu dafa am lu ñu euh, tuuru lu ñuy wax tuur il faut nga am lool loo ci loo loo ko bàyyi mm. waaw boo fekkee nag ne yaa ngi dégg ñu la naan euh, bul topp ñi bul déglu li euh, jàmm mooy ci jàmm jàmm ana ah, jàmm jàmm amul fenn yow yaa ngi nekk sa doom yow yaa ci kër gi bu ñu yeewoo amul duñu am duñu am ñu lekk yow yow yow nga fee nga sa doom secondaire fekk nga doom dem enseignement supérieur am fa ay diplôme eh, toog ba diplôme dugg ci poosam bu jox la ko nga def nga nga def sueur wala nga def ko su armoire muy nelaw foofu di yàq dafa nelaw dafa nelaw moom bu yeewoo du am kii fu ne mu ngi fay def ay demande loolu du jàmm. Ah, loolu du jàmm. loolu du eh, eh, tout ça. jërëjëf. voilà voilà jërëjëf amoon nañu mbégte lool sekk ak yow waxtaan bi xool la xewoon démb euh, ba ngeen duggoon ci politique ak li xew tey ba jaral leen ngeen duggaat ci wàllu politique sa engagement ci PASTEF notamment wetu Ousmane Sonko itam dikk nañu ci ci démb ak tey bi amoon lool mbégte dalal la ci pour la première fois di am yaakaar ne du doon bi mujj du ñàkk daanu sekkaat ak yow yeneen waxtaan ndax mag ñi mel ni yéen dañ leen di soxla la xewoon démb fekkee wuñ ko waaye yéen a ngi ko fekkee nekk fekk ñun ba tey itam yàlla nañ ngeen fi gën a yàgg euh, ñuy faral di am mbégte lool di sekk ak yéen euh, jotaay yu ni mel ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. waaw jërëjëf jërëjëf man tam maa ngi leen di bu baax a baax l' information il faut la diffuser. y en a qui sont contre la diffusion de l' information parce que dañuy dañuy bëgg lëndëm lu lëndëm rek moo leen arrangé mm. ñu ne lu leer lañ bëgg lu leer. moo tax comme da ngeen di yéen da ngeen di leeral da ngeen di euh, siiwal mais vous êtes la bienvenue tant que quand que vous aurez besoin de moi rek